situation bi daal nii la demee ndax ñun suñu doom yi ay mool lañu te xale yi bu ñuy dem mën nga leen a yëg mën nga leen a yëg ndax bu dee fii la amee ci tefes gi mën nañoo fay mën nañoo bañ a fay dañ si am ak ñe dañ si am ñëpp suñuy doom lañ gaal gi ci ne ñëpp suñu mbokk lañ suñuy doom lañ ndax ñii ñoo bokk nday ñii ñoo bokk baay ñii ñoo leen jur ñu ciy ñaan dimbal bépp autorité bu nekk ci Sénégal bu ne mu dimbali si wër lañu ko ndax jàq nañ jaaxle nañ te tiit nañ tey fukki fan ak juróom-ñeent dugub ku mu dugg sa gémmiñ te bu dee benn du ñaar añuñu reeruñu ndékkiwuñu am nañ tiit tiis ak njàqe ak njaaxle dañoo demoon nag pour daani seen doole rek bu xamoon ne nii lay mujjee xëy na duñ si dem mbaa duñ sa soobu yàlla rek ka xam ñuy ñaan dimbal ak ku ñu mën a jàppale ku ñu mën a dimbali mën ñu waral suñu njaboot gii ndax tefes benn boppale kenn mënu ko xar ñaar te doomi tefes rek si nekk li ko dalee taat tefes gii ba dóobaale ga kër gu ne am na ci kër gi fii juróom-benni xale nga ci kër gi ñu dendeel fukki xale ak ñaar nga si ngayeen gi doomi Farimata nga ca doomi Ami Ndaw nga ca doomi Fagana Njaay nga ca koñ bi mënoo lim fi di ko dalee koñ bii ba bi koñ bii lépp la xale yëpp nga sa gaal di jóge suñu métti na loolu wax dëgg yàlla mënuñu la wax sax suñu métti loolu mooy yàlla rek moo ko xam suñu métti sax suñu coono mënuñu la ko wax dañu toog nii rek te dañ toogoon sunu ànd xamul leen lu ñu mën a def mënuñu tëpp mënuñu dee mënuñu def dara kon si nii dal ànd ak yàlla lañ mën kon dañuy delloowaat lépp ci yàlla rek tax xam ne ñu ko joxoon it leneen lu yàlla defit mooy li gën gaalu mbëkk rek te xale yi ku ne xam na ne bu ñuy dem doo leen yëg ndax bu yaakaar nañ ne buñ la tàggoo nga bañ bañuy day fa ñuy waxante dajaloo fa war a dem yow du la fa fekk du la fa fekk kon nag tay ku sañon ku nek do xalé nak loolu sa bo xam dañ la naan dëkk bi dafa metti dekk bi dafa metti kon fañu dajalo ñom difa waxtane ba war fa mëna gaddo gàddoo seen bagage dem yow dula fa fek waye ñun dal bëgg nañu kuñ ci dimbali rek te yalla tax. ñi ngi ñaan ci yalla suñu njabot gi yalla na leen yàlla taxawu si darajay sayidina muhammad wëru magal gi ñu genn yalla na leen sayidina muhammad ter ñu solo lañ suñu njabot gi ndax wëru ñu si fen suñu doom dañuy dem ñëw di dimbali seen wajur kon nag tey bu ñu demee ba gisuñu doom ji dimbali waajur seen seeni i seen xol jeex na te ñun suñuy xol jeex na doom yëpp suñu njaboot la njoobeen gee ngay dem bu yuuxu jubee ñun ñii ñoo yuuxu ndax turi jóge fee moo ne turi nekk fii Farimata Gaye mii doomam sonn na te yàlla na ko yàlla ak Seydina Muhammad sunu doom yi dimbali leen ñu sunu waa kër yi sonn nañu